asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xame nag Leewtoo TV ngeen di gis Lutte TV li ko waral nag Babacar ak Lamine la xam nga dañoo am suñu xarit boo xam ne nii yàlla moo def mu bëggal ñu boppam muy Serigne Cissé mu sëñ Babacar si doomu Saalum bi léegi nag. ki nga xam ne tamit nitam la di xaritam liiru jaan jóge États-Unis ñëw di ko seet si sëñ Cissé nag woo woo Lamine nañu faw ngeen ñëw parce que liiru fu muy ñëw di sama kër di ko fekkee liiru nag ku ne xam ne fan yii sax xam naa du ñàkk gars yi dinañ wax la waaye nag demewul noonu xam nga rek olof a ko wax tombe waral ay gaaf yàgg maar Lamine du mën a ñàkk sëñ Cissé bu nu wooyee dañuy ñëw buñ fi fekkee liiru faaw ñu taal suñuy micro waaw te yàpp ya nooy ak yooyu dibiteri pako wan ba ba mu ci jógee nag xam naa lekk gaa neexoon ba far mu nelaw yàndoor booy yoxosu ko jël la mu yoroon am na sax ñu gis ne ay waaye lépp liiru moom foog ma ne dina dóor nit ci sama yaakaar kon ma wàcc ni mën naa toog ci suuf de wala waaw waaw nii laay def Lamine yàgg maar ma jëkk na yu liiru parce que wala wala gan gi sax sëñ bi laay njëkk ak ziare sëñ Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi lay dellu ziar baax euh, sëñ Babacar di la jox sa wàccuwaay Leewtoo Lutte TV ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di siyaara mbooleem waa ahlu làmb ñoom ñëpp ndax defe naa ne fii <laughs> moom ko yokkal kàddu waaw di nuyu yàgga maar ak yow ak ndax fi ngeen mu fekk kii ah. sama sëriñ la sama xarit bu xóot waaw sama la mu sëñ Babacar ku ne dégg na ma mu subaawatu lu ma sëñ Cissé mu sëñ Babacar hmm. man ñëpp xam na ma taaliba mu nit laa Baay Faal la waaye nag sëñ Cissé mu sëñ Babacar mii moom fu ma jaar man maa ko xam bu baax a baax a baax a baax. ci a wax. boobu ba léegi. ma fiy waaj ñëw. Hmm. tey jii ba mu yëgee sama sàcc mu mett ko lool mu mett ko lool ma ne ko dinaa fi ñëw mu ne ma man maa ngi doon seetaan benn vidéo sax man sàcc sàcc mu mett ma lool ñëw fii yow xam nga ne sa mbir sama mbir la loolu naqar daf may naqari sa mbégte sa sama mbégte la. sag naqar sama naqar la ñëw fi moo tax tey ma def déplacement bàyyi lu ma defoon yëpp ba ñëw fi keroog démb police laa yeru santal ndax sàcc yi waaw di nuyu waa santal gépp di nuyu sama waay ja nekk ca police ba bo borom borom borom Koungheul. borom Koungheul lii xanaa bu ma la déggee. ak ak central euh, ak fépp dem naa tribunal bi. ma ne ko dinaa fi ñëw mu ne ma man maa ngi doon seetaan benn vidéo sax man sàcc sàcc bi. mu metti ma lool ñëw fi yow xam nga ne sa mbir sama mbir la loolu naqar daf may naqari sa mbégte sa sama mbégte la sa naqar sama naqar la ñëw fi moo tax tey ma def déplacement bàyyi lu ma defoon yëpp ba ñëw fi keroog démb police laa yeewu central hmm. ndax sàcc gi waaw di nuyu waa central yëpp sama waay dafa nekk ca police ba borom bo borom kuréel. borom kuréel liiru xanaa bu ma la déggee. ak central euh, ak fépp dem naa tribunal démb tamit. tribunal si maître Ndiamba. maître Ndiamba aw sama avocat <laughs> xanaa war da ngay la woykat ba doon wuy walloo weesu naa wut wal. Ah, boo demee police dem Sonatel loolu. fépp laay dama ko dul bàyyi nan mu yombee noonu ndax man leer na ma ne man am na loolu ma wax ne man sa sa sàcc su feeñee. Euh, soo ko gisee. yow sa bopp yaay njëkk a jooy ndax sàcc ba da lay bett ndax ku la jege la lool ku la sës la koo xam. maa duñ la maa naxee su la ngay. waaye man naxee dimbali ma waaye xoolal dimbali ma nga am ay man sama sàcc daf maa xam Babacar ki ma sàcc na ma te man leer na ma li ñu koy waaj jël bis ko ko defee su boobaa yàlla bu ma ko jël naan na ma koy fajiwaat di di ko faj di ñàkk sama xaalis la. mais loolu est-ce que alal jaar na ko. moo ñaaw geste bi moo ñaaw sama portable sama portable doom sama waaw sama calme. loolu la jël. li ma jël ci xaalis boo ko estimé ñaata la. non lépp moom wax dëgg yàlla téléphone soo ko jaayee moom mën na un million lépp mën na dina ma un. pourtant suñu bu doon bàyyi. non maanaam dama ko yàndoor sa yoon nekku ci nga may ay ne affaire fi ku nelaw bàyyi nelaw rakki dee la. man damaa laaj rek yow du yow soo nelawee doo bàyyi. man damay bàyyi ko. ma daal waaye bu la wax de yow xamal luy bàyyi mbiru bàyyi. non bàyyi ko nelaw nelaw ba yàndoor. nelaw daal rakki dee la dimbali ma nelaw rakki dee la yow xam nga ne nelaw rakki dee la. mais léegi léegi ma laaj la Liiru Jaan en tant que ni nga toll ci réew mi sàcc nañ la d'accord sàcc kenn rafetlu ko ñu koy condamné di waxaat sàcc soosu leen nañu uti li ñu def te bàyyi sàcc sàcc wóorul mais non fi may ñëw mooy boo demee sa police tribunal Sonatel est-ce que dina jar tamit nga a yàq nit. la xaw ma bul ay yàq nit. ah man daal l'essentiel ñëw naa sama sëriñ wool na ma mu naa waaw ba ci kanam daal man daal xam naa daal affaire boobu la ma jaar naa police jaar naa tribunal ndax ëllëg lu ci mën da am moo tax ma def loolu mbirum baatin bi tamit yaa tudd de ma tudd ma ko sàcc bii bis ñàkkul jom indiwaat li mu sañ sukk raam. ne ma jéggal ma suturaal ma ma suturaal ko. Hmm. billahi wallahi du baax ci su ko defee di nga ko baax. barki Cheikh Ahmadou Bamba naa ko baax man nit de nee na ma sàcc bi de man su ma ko xamee wala su ku munta doon man su ma ko mënee gis dinaa wax ak moom. ci na mu yoot indi ñu ngi jéggal ko mu bañ a jëm nga wéy turam ma su ko defee ma baal ko amul problème ndax man portable ba sama pièce ya sama numéro ya sama portable doom xaalis bi mën naa ko jox. mën ndax man portable ba sama piis ya sama numéro ya sama portable doom xaalis bi mun naa ko jox. nan la jox téléphone yooyu. voilà. surtout piis yi. voilà numéro piis waaye numéro yëpp laa ñàkk loolu ma metti ma tey gis nga ba yow moo xamal la benn affaire hmm. man tubaarikàlla moo sori gàcce nga la léegi la su nit ñi wut alal wutal nit ñi. Ah, soo amee nit ñi amul lépp. Mhm. man fu nekk lan may wooy ci man bi. itaale xoolal ñëpp di ma woo di ko metti du ko métti lu. Mhm. sama sëriñ bi woo ma. Mhm. man xam naa fi toll ci moom xam na fi ma toll ci moom. woykat ba noonu nag wuy wàllu waaw wuy wàllu. voilà wala sëñ Cissé. ah dégg nga li mu wax de. su ma déggee wax ji daa mel ni kii. ak wàll lay wut. muy sa sàcc gi defe naa yëngu na ko. sëñ Babacar sàcc daal mën a tas yaakaar yi nit waaw moom na wax ci réew mi yomb na dee fi neex na waaye wax fa jafe na mooy ne nit dana wax ne ki dinaa ko def noo xam ne dana indi sama alal wala dana gis naa ko sunu loolu am nit koo xam ne am nu mu déggee wax ja waaye moom it ba dafa fekk ne mooy ay tooram téléphone jëfewul waaye wër di dajale numéro dafa metti ndax tey tey bu ñu mën na xaj jënd téléphone jox ko waaye mënuma wër numéro yi di ko joxe kon kooko dafa tas yaakaar ki am fulaay tas yaakaar la amal fulaay duwoo ko wallaay lansi suñ Babacar adduna mënuma mën naa wax ne kenn gënuñ maa rafetu xol waaye képp koo xam ne danga nga ba xel def ma ko baa nga ma koy def ma def ma man daal ku la wax nga xool ko man loolu laay fonctionné li mu wax am na ci droit xam yow ko dóor nag gi xalifa Malick soo ma dóor dóor am naa ku de man xulootuma xeexuma xulóo ma xeexu ma cay sama rakk ji Balla Gaye 2 ak gaañu ak